Kumba ba nga yeesee la xel yi dal Kumba ba nga yeesee la xel yi dal ne leen yow ba nga yeesee la xel yi dal waay Kumba fuusal ñëw nga ngay jaay nga foofu dal waay ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ay puusal ñëw ñaajo jaar defoo fi dali am fi dali puusal ñëw ñaajo jaar defoo fi dali puusal ñëw ñaajo jaar ku ma ni mu mel yaayam la ku ma ni nga mel ku ma ni nga mel way ni nga mel nee leen ey bi ma am ku ko am loo di wax wax leen bi ma am ku ko am loo di wax ey yaay ku ko am loo di wax. eh di yaay ku ko am loo di wax. yaayu seex neexul yéenam. ne leen yaayu seex neexul yéenam. yaay booy ana yu koy. kumba bul jooy ma kay man mii damaa la way. eh kumba ma kay yegg see la xel yi dal. eh kumba ma kay yegg see la xel yi dal. kumba ma kay yegg see la xel yi dal. kumba doxal dox bi dugg bi dugg sil waay kumba doxal dox bi bi dugg sil a Vamos